side. nuyu ñëpp am mbégte bu baax ak contentement du nuyu sénégalais ak sénégalaises yëpp mbégte am doom bu boo yar amul benn tâche ci doomu célébrité yombul donc tey bu jaaree man foofu yëpp ba am doom li ma war mooy teral ko waaw ca jëkkëram nag daf ko teral lool sax donc nii rek moo ma war tey dama am contentement bu mag waaw. xam nga damaa jaboot dèjà am naa juróomi barke macha allah mais moom sama sama sama complice far ne ne sama xarit la moom doom bu bëgg yaay la doom la boo xamante ni dama koy ñaanal rek gudd fan bëgguma sax di wax lu bari parce que cat dafa gaaw alhamdulilah sant rek doom bu la déggal muñal la bu ma jógee joué ji ba ñëw moo gën ci man des fois duma soxla sax ñu maase ma waaye su ma yëg si sangu rek nga gis mu génnee yaay kay ma maase la sama yëre su ma yëg see mooy lem donc moom yàlla moo def mu bëgg yaay moo tax tamit ñoom ñëpp laa bëgg mais moom sama xarit la waaw. Ibou baax na trop dafa teral sama doom dafa teral sama doom lool sax donc kontaan naa am naa mbégte alhamdulilah yàlla boole ko góor bu bu am compréhensif ba pare nekk nit yi kese gis nga leen ci tiktok bi tout ñu ci tiktok bi te dafay dal dalal xel xel waajur am naa mbégte ci ibi waaw lu tax daba sëy waa xam nga xam nga nit moom boo xasee ba jébbal jëkkëram may ko ko amatoo ci moom ay droit

li muy def di neex na jëkkëram ñoom ñaar ñooy ànd di ko def TikTok defe naa ni Sénégal yi ak àdduna sax laay wax ñëpp a ko xam donc loo lépp looy def pour jàmm rek di ko fa sànni nit ñi di ko gis lu neex la. dañ gis Daba Seye la lay wax. laa ko digal xam nga lii man mën na bañ a nekk moom parce que man am naa maturité xam comprendre yàgg naa ci sëy def naa léegi 18 ans de mariage donc nit moom boo xasee ba mature rek. yow di nga xam fi ngay teg sa tànk mais xale la euh, te bu ma toppee gis na ni ma sëyee ñoo dëkk man ak moom gis na bu baax ni ma sëyee yoon boobu rek laa koy teg nekk nit ku jàmm nekk nit ku yaatu nit ku bëgg jàmm nit ku nit nit koo xam ne xol bi dara newu ci loolu mooy daba sëy lan mooy lan mooy tee sëyu artiste parce que au Sénégal dañu jàpp ne artistes yi duñu sëy nga def 18 ans de mariage macha allah di ñaan yàlla suñu borom yokk lan mooy tee sëyu xam nga jigéen moom artiste beeg première dame beeg ministre beeg ah chef d'entreprise beeg lépp rek jigéen nga donc boo nangoo ñu yilif la yàgg li nga am rek sëy day yàgg te culture boobu la am ay jigéen lañ faa ñuy sëy man moom laa gëm man sëy rek laa bëgg. waaw Mor Mané d'habitude noonu la ma taxawoo xam nga 17 ans de mariage du ay caaxaan. moor topp ma dara daf ma bu ma yeboo sax daf ma bàyyaale parce que xam na ni nit matul dèjà nit laa boo xamante ni Daba Seye bii nga gis nii moom rek nga gis moom laa doon ñi ma dëkkal xam na loolu aw ma ay aw ma aw man dundu ma star dundu ma star moo tax sama jëkkër day sawar ci di ma taxawu taxawu na ma ci yëpp sama jëkkër taxawu na ma ci sama musique taxawu na ma ci sama liggéey taxawu na ma ci sama sama sëy taxaw na ba ma am yëpp li nga may gis ni du du du tiitaru du damu mais lu nit war a am ci liggéeyam rek moom taxaw na ma ba ma am ko waaw parce que booy liggéey teral sa nay nga bëgg yóbbu ko màkka sama jëkkër fexe na ba ma sama yaay màkka booy liggéey am sa këru bopp nga soxla sama jëkkër fexe na ba ma tabax sama këru bopp donc moom daf ma taxawu ci boor yëpp waaw far ne ne mi moom juru ko du papaam waaye musuma gis mu taxawoo sama doom noo xamante ni rek lu may marqué lay nekk. Mm-hmm. donc bëgguma ci sax di sori ndax doomu jiitle dafa metti mm-hmm. waaye sama doom yi sentiruñu benn yoon doomu jiitle. Mm-hmm. comprendre nga dafa leen def comme doom yi ma am moom dama jaboot am na macha allah juróom ñu bant yàlla na ci yàlla teg loxo. waaye mu xàmmeewu ma yi moor jur ak yi moor jurul mhm. te loolu chance la. ban na xam ne boo ko euh, waaw mooy respect xam nga respe lu mu dugg rek loolu mën na yàgg. Mhm. doom nga jur ko nga ñàkk koo jur ñun comme Afrique ni ñu yare rawatina Sénégal dañu war a am cër jox ko mag ñi mhm. donc dama leen di xamal toujours bu dul ci kër gi sax hors kër gi ku ngeen gis jox leen ko cër. dama leen di jàngal tamit bu nit ñëwee ak lu mu sonn sonn am leen yitte ci moom jox ko mu naan jox ko mu lekk même bu dee gisuma sax dina am euh, soulagement wu waaw ndax déplacement dafa fort donc euh, woo naa Viviane téléphone woo naa Titi téléphone woo naa Aïda Samb téléphone woo naa leen ñoom ñëpp comme guddi gi xaaj jeexagul nag mm-hmm. affaire star la mm-hmm. dinañ ñëw parce que ñoom ñëpp jël naa sama téléphone woo leen ci kenn ku ci nekk ne nga ma dina ñëw mm-hmm. waaw ci ay ay ay ay wax maa jël sama téléphone woo Viviane maa jël sama téléphone woo Titi Titi moom dama ko woo sax jotuma ko mu rappelé ma ay décembre ñoom ñëpp dinañ ñëw woo naa leen waaw kon yow ñoom ñooy yaay yi faaw ñu ñëw waaw kon yow maanaam euh, li nga xamante ni artistes yi des fois ñu koy dund affaire de star affaire de clan yow xam nga bu yàlla dogalee nga nekk woykat woykat kuy bégale la mhm. munoo nekk di bégale ba pare di kalan ak di dund affaire soxor munul nekk mhm. man boo man ñu ma dëkkal ñoom laa dendal nii ñoo toog nii mhm. mais yàlla sedd na ni man ci sama xol awma benn soxor contre ku dul artiste sax parce que xam naa ni yàlla rek ma fi nekk boo liggéeyul munoo am dëgg la foog nga góorgóorlu comme woy rek lañu yàlla seddee ñu bokk ko ñu koy rafetal am na solo ñoom samay nattaango la pourtant non décembre passé rek waaw bu passé yàggul noo yàggul xam nga musique musique nekkul loo xamante ne ay caaxaan la mm-hmm. woy woy dafa garaaw man su ma gisee gars yi di génne par semaine daf may def reetaan mm-hmm. parce que woy dafa doy waar woy woy woy du lu ndaw non du delloo musique du yàq musique mais woy da ko war a togg mm-hmm. loo xam ne lu ay nopp di déglu la muy àgg ci xol di jaar ci deret loo war a togg la ba mu ñor waaw man man maa ngi fi alhamdulilah yal na yàlla yàqu fan yi yokkal ko ñëpp nag waaye musique sama liggéey la mais yàkkamtiwuma waaw mën Daba Seye si beneen tendance maanaam bu xew xam ne xale jigéen mu ngi TikTok. Hmm. bokkul ndaanaan la gis nga boo xasee ba wuyoo ndaanaan nan la xaar fépp man damaa doon man ab buur géwël laa chaque jour ma fàttali nañ ñi dafa am buur géwal am bat géwal am géwal piir ak géwal mbaay dafa am ay façon géwal man buur géwal laa sama maam yi ay buur lañ daan woyal waaw nañ ma xaar fépp am naa possibilité macha allah suñu borom defal na ma ko alhamdulilah mën naa woy ci lépp kon nañ ma xaar fépp en tout cas mbirum sëñ Fallou laay doxee tepp tepp laay def mbirum sëñ Fallou ngay doxee ñu gis uh, ki nga xamante ni moo di Coumba Gawlo defaat retouram yaakaar naa ni loolu bànneex la bi nga gisee mu génne son bi mu tuddee sant yàlla jaam bu nekk war ngaa sant. Mhm. sant moom war na jaam yëpp. Euh, yal na yàlla am defal ñëpp jàmm. Mhm. en tout ñëpp a ngi sant. Mhm. ñu ngi sant bu baax yal na yàlla nangul ko santam ca nangul ñu suñu sant. ñoom ay ay ay ay ay ay ay ay ay leader yu mag lañ. donc ñoom ay ndaanaan lañ. bu ñu sañoon jàmm rek la ñuy am. yàlla na ko yàlla may wér. yàlla kattanal ko. defal ko Viviane defal ko Ticci defal ko Aïda Samb. defal ma ko defal ko mboolem jullit donc Kumba ñu ngi lay ñaanal sa jàmm jooju ak sant googu yàlla na ko yàlla lawal kontaan naa